waaw ci wolof waaw waaw fi ma fi ma mujje foofu lay commencé ci wolof bi maanaam ñun gis-gis bi ñu am ci sunu ànd bi ak Macky ànd bi ñu ànd ak Macky Sall ñun liñ ci gis mooy ànd bu am njariñ la parce que yàlla dafa dogal bi ñu àndeek moom moom moo ñu jël si te ñi mu ñu jël see mooy dem leen Augustin Tine la ko wax ne ko demal dans le département tous les maires ngi fexe ba ñu ñëw APR ñu jàppale leen ñu liggéey yàlla dogal ñun sunu diggante ak waa réew mi nga xam ni seen bannière lañ demoon élection yi naqari loolu duma ci insister am na circonstance yoo xam ne ku ci bëggul la leer moom ak laajee ma la ko mais diggante bu naqari daal ndax ñàkk ñoo jox cër bi ñu waroon a jox moo tax ñun ñu gañe élection yi ba pare dem ànd ak ànd boobu nag réccu ko ndax li wolof njaay naan xàcc bu ne wërsëgu nit la looloo ci nekk parce que ba nu xàcceeg ñoom daje ak Macky Sall daf ñu habilité permettre ñu ñu réaliser beaucoup de choses amoon nañu gare routière boo xam ne maire bi fi nekkoon moo ko yoroon te manu ci dara dox dox bay bëgg a dee sottiwul bi ñëwee waxtaan ak Macky Sall mu defaral ñu ko gare baa ngi gare routière baa ngi nii daanaka pare na ensuite mu indi ñu sapor pompier loo xam ni ne mosula am ci histoire xombol loolu bokk na ci suñu transition bi ñuy wax ñun mosu fee am ba pare construire ñu dans le cadre du PNDL benn salle de délibération ci miir mairie bi loolu ak lii nga xam ni moo waral coow tey muy inauguration pose première pierre ou euh, ce qu'on appelle euh, euh, le centre socio-collectif loolu lépp suñu diggante ak ànd bu ñu ànd ak Macky Sall la ko waral Macky Sall nag comme ni ma ko waxee yemul woon rekk ci euh, ñëw indil ñu lu bees en regroupant les maires du département ba tey mu moom département bi mais daf cee boole def li ñuy wax PUDC aussi muy beneen tegtal bo ci xam-xamam ak xarañam boo xam ni dafa wër réew mi gox yëpp mu dem fa déglu nit ñi xam lan mooy seeni tiis ku ci ne mu indil la solution ñii ñoo xam ndox la ñu bëggoon hydraulique ñii wàllu électrification rurale ñii ay piste de production ñi mel ni xombal nga xam ne ñoom ay machines yu mën a transformer ay produits agricoles moom la ñu bëggoon ñoom ñu bénéficier ci donc PIDC moom ak le fait d'avoir trouvé que il fallait rallier les maires tous les maires du département pour le gagner je pense que loolu mooy caractère distinctif bu Macky Sall yaakaar naa ni tontu naa ci question yëpp ci kàddu yu gàtt donc ñu ngi leen di remercier waaw wàllu sport ni ma leen ko waxee rek yàlla dogal na euh, wax naa ko ministre bi ne ko su centre socio collectif bi sottee moom lenn rek ay des mooy infrastructure sportive yàlla dogal na am nañu stade boo xam ni bu ñu jógee ci coupe du monde 2002 euh, Sénégal amee ci alal joo xam ni ñun bokkoon nañ ci ñu ci bénéficier ndax stade bi tabax nañ enceinte bi am na aussi grille de protection lenn rek moo ci des mooy aire de jeu bi aménagé wuñ ko defaraguñ ko tribune ak vestiaire loolu nag wax nañ ko le ministre Abdoulaye Diouf Sarr xamal ko ni loolu moom moom rek moo ci des maanaam loolu bu ñu ko mottalee la jeunesse de Khombole dootul jooy dara parce que la mu doon jooy ci wàllu centre foyer socioculturel am nañ ko dans le centre socio collectif li ci des mooy fexe ba nu am stade boo xam ni day am tribune am vestiaire am proté projecteur yi ñuy permettre ñuy mën a football guddi loolu daal bu ñu ko amee doot ñu jooy dara euh, mi ngi noonu. bañ waaye ñun wolof bi sax moo ñu nag dëgg yàlla bon li ñuy commencé mooy dañ ñi njariñ ngërëm say bokk d'abord day sa wewu tànk looloo tax ma ni maa ngi sant Demba Ngoy ak Lamine Gueye ndax bu nu déglu woon ñenn ñi ba léegi ni ngi ñuy àtte ndax nit ñi yàq moo leen gën a yomb defar te sunu ànd bii sunu ko sàmmee ni ko war a sàmmee dinañ mën a def lu mel nii ak leneen lu mel nii mu amal njariñ dëkk bi mais xuloo bi amul njariñ yàlla nañ ci yàlla mu musal bon maa ngi leen di gërëm bi ngeen ko comprendre noonu bu nu kenn boole danoo seeti woon Vieux Maguette Diome mu ñu ni 1960 ba léegi maa ngi ci mairie bi xombal bi ñu musa ànd bu ñu làqeem at rek kuloo su ngeen fexee ba loolu dalu leen lu ngeen bëgg di ngeen ko fi def bon yàlla na nu loolu yàlla musal ñu ci ñu mujj ci di gërëm si ñi nga xam ni ñoom laa àndal ma ñi may àndal ñëpp xam nañ leen parce que du ànduk tey ànd bu yàgg la su ma nee wëlba rek ñu xam ñi àndal ma maa ngi leen di gërëm di gërëm waa Xombol yépp aussi di leen sant di leen xamal ni leen man de doomulaa laa joo xam ni su ngeen ma jàppalee tuuti rek lu baax dina ñëw ci dëkk bi parce que ñàkkewu ma noonu wërsëg te it am naa yéene bu mat sëg bon bu ngeen ma jàppalee aslëf rek ñu lijjanti mbir mi ci lu ñépp bokk na ndax man li ma ñor ci Xombol mooy liggéey boo xam ni ñépp koy bokk maanaam feggaluma kenn waaye it faluma kenn xombal jëpp su ma sañoon lu ma fi def day nekkul lu ñun ñëpp di mel bokk muy centre bi muy garage ba muy la case des tout petits hein ak sapeur pompier yi ñu fi am bu loolu weesoo maa ngi gërëm sama mbokk maire yi fi ñëw di Thiaw wax naa ko léegi ci tubaab waaw tubaab yi terewul ngeen xam li ma doon wax ndax wax dégg gaa neex moo dàq wax ja bon maa ngi koy gërëm di gërëm Daouda Tine pour maire yi mais ngërëm li tigi tigi tigi tigi mi ngi jëm ci monsieur le ministre Ablaye Diouf Sarr parce que moom dafa tef ba ma ñime ko te loolu rek am solo ci kilifa parce que bi mu ñëweek léegi ñetti yoon recevoir na ma ko bureau te kanamam mosula soppi te daf may déglu wax ak man wax ju daal looloo waral lii tey donc jar naa gërëm ba ñëpp xam ni en dehors de mbubbum ministre mi dafa nekk aussi nit ku yiw ko xam ni xajal nañ ci boppam ba ñime ko mën a wax ak moom te it rafet nañ njort ni lu mu man ci dimbali dina ko def du duñu ko sax soññi soññi bu ëpp parce que du ko mat waaw bu loolu weesoo ma daaneel ci président Macky Sall rek li ma làkkoon ci tubaab léegi kooku moom ñaari mbir moo ma neex ci moom dafa am nag maag moom lu nu xaw a nuroo xaj na moo ma gën a neexum xel sax son intelligence m'intéresse mais farata ji ak fayde jéem a gën a saf parce que man loolu rek laa taamu ci sama jub waaw bon président Macky Sall ñu ngi koy gërëm am na nag ñaari mbir yu mu def yoo xam ni kenn dootu ko fàtte ci réew mi Ablaye Wade dox na lu ne pour moom département Thiès manu ko Macky Sall ñëw ne ko déedéet da ngay dem rek jëli maire yi boo àndee ñoom rek ñëpp ànd ak yow nga gaje mu def ko gagné bon Macky Sall loolu wane na ni moom borom xalaat la mu teg ci PIDC programme boo xam ne daa wër réew mi di laaj nit ñi lañ mooy seen problème nit ñi wax ko lan mooy seen problème mu xam ko ñi ab bëgg ndox mu jox leen ndox ñi bëgg piste de production mu jox leen ko ñi bëgg produit matériel bu transformer les produit agricole mu jox leen ko muy trouvaille boo xam ni. néew na président bu fi ñëw trouvé ko noonu surtout nag loo xam ne dafa am jeexital ci nit ñi bon ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko xamal ne ko ñun de am nañu ba faaw te doot ñu ñàkk wasalaam. voilà